xam ngeen ko xam naa ko ñëpp xam nañ ko euh, féetale naa ko ginnaaw loola am njeexital ba 2007 2007 boobu ah comme lii rek mu yóbbu ma hôpital ba ma fa nekkee ñu opéré ma 9 heures d'horloge 3 jours après mu tombé ak le 12 juillet 2007 ñu wax. sama gàddi koor ak sama soxna ne du fanaan waxuñu ma ko man waxtu boobu mënumaa wàcc lal bi sëñ Alaaji Baara Mbàkke Falilu woo ma ay booru 18 heures heure France ne ma naka def ma ne ko maa ngi tane ne ma bàyyi tane bi te wér wér rek ñibbisi rek am na wala moo fa nekkee su ma nit woowee ne ma ndax yaa ngi tane ma ne ko wér naa balaa may ñëw laa wér waaw ndax loolu la sëñ bi waxoon dafa fekk munuma ma nekkee a interroger bi nga xam ne maa ngi am malaise dafa am ku faatu koo xam ne présidence de la république la yoroon les ressources humaines nekk directeur des ressources humaines ma dem ñu jiite délégation bi pour fañ koy dencee nga xam ne ñun gënuñu ko ñu tiim ñu di ko denc moment ñu tollee ci ñaan yi laa am lu ma yëg ci sama yaram te booba bugguma perturber ñaan bi ma reculer ba sori damaa toog boobu yàgg rek gis nit ñaa ma tiim alors maa ngi nii di ko nettali parce que loolu la yàlla dogal ci mission dama fekkoon nag damaa fekkoon ci mission te suñu borom ne du jeexe noonu kon mu mel ne bu ma demee wér rek ñibbisi rek guddi googu nag ñu waxoon ne du ma fanaan guddi googu du ay waxtu ay année la bët dina mas a set na ndax yow xam nga ni sëñ Bay Jaxate nee na moo teemaa jóg fàttaliwaat te soññewaat ngir leen mu dem te duñ dëppaat amaana dig ba jege damaa dem ci fekk fa képp nit mu ni cundum ci biir bàmmeelam ak i jëfam ma xam ne koo xam ne fii di mu jëm bu yeewoo day teel a jóg ci biiram mooy waral bu ñëpp jëmee fii te gëmuñu ko buñ fa dem waaw maanaam man bu nga dégg may jël parole di topp mouvance bi fi mu jëm li ma gëm lay wax ñii xam nañu ne ci 2012 ci législative bi ànd nañu ci dëkk bu nekk ci département Thiès bi mbooloo mi bëri lool tàcc yi foor lool bi ma jotee ci micro bi comme nii man leen billahi wallahi wa taalahi gëmuma leen ma ne ndax élection musul am te ñëwuma fi musul musuma fee ñëw te bëreewu leen nii musuma fee ñëw te wu leen ma nii te musuma fee ñëw wax leen leneen lu dul li ma leen di wax nii te mosuma fee dem mosuma fee jóge ba ngeen voteel ma lu tolloog ak seen teewaay ak seen tàccu kon pourquoi ma na di gëm ma ne leen fii ngay romb nit mu toog ak doomam ne la nu ngeeg yow nu ngeeg yow nu ngeeg yow nes tuuti keneen ku dul man romb ko doomam a ngi toog mu ne ko nu ngeeg yow nu ngeeg nu ngeeg yow man leen yàppaa pire châtiment que ça ma ne bu guddi jotee nag moom mi doon yar doomam di ko wax fen baaxul sàcc baaxul jublan baaxul rambaaj baaxul doom di gis ko nit ci télé bi mu koy tàccu te fekk kooku di fen di sàcc di njublan di rambaaj ma ni leen ci prix dem sama yoon at mooma la ma fa am musuma ko fa parce que xëy na am nañu toogoon ca biir kër yi te loolu leen intéressé ñoom kon bëri nañu toog dañuy wër ñu leen di wax tey doxal yoon

mais yaakaar naa ne nit ñi ñi ngi fàttaliku ne ba ma jógee bitim réew le 11 11 11 muy 11 novembre 2011 dama ko taam ngir bisu armistice la tamit bis la boo xam ne ci weeru tubaab ci la Sëriñ Tuubaa ji bisi woon ma xam ne kon bisu jàmm la bi ma dikkee ma wax ñi nga xam ne à l'époque ñoo yore woon M23. ne slogan bi ngeen di yëkkati di wax touche pas à ma constitution ce slogan ne me paraît pas éclairé parce que c'est un slogan importé du Niger ndax ñëpp xam nañ ne Niger dañoo defoon conférence nationale bokk tabax benn constitution ñëpp bokk ci d'accord président Tagnan néewul woon constitution boobu may na ko mu présenté wu dafa ni dama bëgg ngeen modifier constitution bi pour me permettre de briguer beneen mandat ñoo ngi ne ko suñu constitution kenn ko la touche pas à ma constitution. man ne mais fii ñun dañoo liggéey ci assises nationale yi ba sonn pour refonder la république kon naka lañ koy defee te duñu laal constitution bi kon jéggaani boobu ñu jéggaani jéggaani slogan c'est pas éclair ñaareel bi ma ne li xew fii Sénégal mooy dañu am président boo xam ne muy Wade dafa ni constitution may na ko mu présenté yéen ngeen ne may ko mu présenté coow li bëgg bëri nit ñi nar nekk di ci xeex ak di ci reyanteeg di ci yàq man leen loolu kay jafewul a lijjanti constitution dañ naan nous le maanaam ñun askan wi ñoo dogal bokkul ak assemblée nationale dogal wala ñu ni euh, président ci décret moo dogal sàmm léegi wala nga gis ñu ni benn gouverneur wala benn préfet jël na arrêté dogal

te lu yàqu ci réew mi ñu lay yàqul booba laa jóg wëri kilifa réew mi maag sëñ Saliou bi ñoo àndoon njëkk a dem ci Serigne Cheikh Sidi Mokhtar ca Nganda booba moom sëñ Saliou bi mu waxee ba àggal Serigne bi moo waxal boppam ne na waxal boppam bi ma waxee ba àggal Serigne bi moo boppam bi ñuy génne ña nekkoon ne lii de miinuñu ko ci moom ndax. bu nit masaa ñëw fii surtout ci nitu yi boo waxee ba pare porte parole mooy tontu mu yor la yaari loxom yooyu ñaanal la nga def leen ñoro ma de mais jàmm ji may woote ma ko doon ñu jóge fa dem Tiwaawol jóge ba yegg ci Ceerno Madaan yi taw ba nu yeggee fekk mbooloom daje bi ñu waxee ba pare mu ne ma am na lu may bëgg def de waaye bul bañ de nii mu jël loxoom dugal ci jiba ji génne dix mille francs ne ma yokkee ko essence bi ngay doxee jàmm ji te foo dem ne Thierno Madani laa ko mais jamono boobu ñi nekkoon ci M23 ñi ngi woon ci jàmbaarisme pour ñoom mën noo xeex ba am li nu bëgg mën nanoo nekk ci mbedd mi ba am li nu bëgg te booba man damaa yàgg ci terrain wu Sénégal ci wàllu combat ak lutte li ma ci tëdd kaso kenn tëdd ko ci kaso liñ ma fi jàpp kenn jàpp ko ci kenn liñ ma fi dóor kenn dóoru ko fi kenn liñ ma fi agressé kenn agressé wu ko fi kenn te tout ça pour la république et pour la démocratie ci lenn luñ ma def loo xam ne c'est personnel pour le pays et pour la république ma wooye te wuy ji wu ma loolu mooy ñi ma daan woo sax maa leen di gën a sawar ci wuyu woo nañ ma fi sax ba ma nekk fi prison pendant cinq mois avant ñu may atte nga xam ne programme nañu ate bi juge bi renvoyé na mbir mi devant le tribunal correctionnel président ba yebal benn kilifa gu mag ñu woo ma ci bureau régisseur bi ma ñëw mu ne ma ah président nee na ginnaaw ay jàmm nangam nangam pour nga génn ma ne ko génn ma ah. su ma génnee nii nii nii fuñ koy ci yoon loxo yoon laa nekk te ki yoree yoon bi juge d'instruction bi nga xam moo yore possible nee na affaire bi garaaw na garaawaay boo xam ne maanaam faw mu dem tribunal ñu atte ko ba mu wax ban tribunal lañ koy atte léegi yéen ban ban cër ngeen am ba man maa génne ci moment bi bu fekkoon dañ maa jàppoon ba ñu tëj ma ngeen gracier mën naa ko dégg mais moomaa bi mun leen ma bay te bu du ma nekk complice violation texte Sénégal génnu ma nañ dem tribunal ñu xool bu dee dem nañ tribunal tribunal jox ma dëgg ma xam ne li ma wax ku ne am nga sañ-sañ wax ko mais su fekkee dem nañ tribunal tribunal ne lépp condamné ñu xam ne li ma li ma wax ku ko ñu condamné la mu leer keroog bañ demee ba ñu waree dem tribunal moo tax soxna euh, Mariama Samb yàlla na gudd fan te wér euh, ma toog jour bi ma waree àtte fajar maa ngi ci sama biir espèce de néeg boobu ma créé parce que lan bi man dama ko wóoree ay séeru rabal mu nekk beneen néeg ma tëj sama bopp waaw yi ne leen bi ngeen ma tëj maa a sawar tëj quatre vingt déglu benn rajo bu ma def euh, waaw yaayam euh, na sotraak booba sotraak a amoon ñëw wàcce nañ leen wàññi leen pour du ñu yegg kat man soxna si dal delluwaat wat taxi ñu ni jëlal taxi arrêté wat nañ taxi bi néna ko do ag sama rango jigen ma commencé hudatun zamanina am sawlu susa dégg parce que Serigne Touba booba da doon wax né euh ne attekatu jamono ji dañu mel ne attekatu jamono Insa ibn maryam da duñu àtte ci dëgg loolu laa nekk di ko yëkkati ba bi may laal ndox arrêté wu ma ba bi may génn ci cour bi ba bi ñuy dugal ci oto bi ba bi ñuy yóbbu euh, tribunal ba bi ñuy dugal ci kaaf bi ma dem ba ñi ma àndaloon di woyandoo lool bi ma duggee ci ci salle bi aussi ñu woo ma li loolu laa nekk yëkkati nit ñëpp yëkkatee ndox man président bi ne silence aux évacuations ba ñu yegg seen di def procès bi. ci lañ doon wax lenn ci lañ doon wax ne waruma ko wax comme am na baatu ngànnaay newoon na ci ñu laaj ma waa léegi bu nangam amoon léegi ban xeetu ngànnaay nga nar a jël man ko xam naa owe mu ne ma ban xeetu ngànnaay man ko bax baxa président tribunal bi c'est quoi le bax baxa ma ne ko c'est une arme terrible et terrifiante sorte du laboratoire spirituel de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim ay ngi dégg yëpp mooy séance plus évacuation kon pour wax la ni kon ñun euh, ci wàll woowu dañuy assumer li ñuy def parce que Sénégal a taxoon ñu di ko def kon jaar-jaar yooyu fenn bu ca nekk étape bu nekk position yañ ca jël dañ ko jël pour loo xam ne day renforcer démocratie ci Sénégal ba ci ndaw ñi ñun ñoo leen njëkk a jiite élèves yi. njëkk leen jiite étudiants yi tey étudiants yi ak élèves yi ci manifester da ngay woy lu diisoon noonu li ñu diisoon noonu boobu maa ko bind. en 1988 mais dem naa ba avant 90 moo fiy jógee ma inventé woon beneen forme de manifestation ñoom li ñuy tuddee ay front yi nga xam dañuy toog boobu ngi génn ci avenue bi commencé raak. sànnante xeer ak alkaati yu mel noonu bu ñu bëggee bloqué mais man damaa mujjoon wax étudiants yi ne bloqué tali amatul bu ñu amee luñ nakari ñi dañuy taxawé ci trottoir bi ñi taxawé ci trottoir bee ñu ñu fess ben auto bu ñëw rombu gis daal né université de am lu lay nakari ñi am dal yi pancarte yi ak banderole yi ñu yore ñi ñu mëna jox track ñu jox leen mais nit ku bëgg dem hôpital buñ ko bloqué nit ko xam fay wuti dépense pour njabootam duñ ko bloqué et cetera et cetera loolu defoon nag fi té téwul won kon ñi ñi doon casse mais trouvé nañu forme yoo xam ne dina dëppoo ak suñu société ba nit ñi war a mën a xam ne am nañ lu ñu naqari waaye du ñu yàqal kenn ci loolu lay invité ndaw ñi di ci invité jeunesse bi aussi alors bi àdduna dee dox ba kon ñu toll ci contexte boobu may wax ñee ne seen slogan bi c'était pas éclairé ma leen di wax nañu def nangam ak nangam ak nangam dégluwuñ ma bañ ne ba ca cëppaandaw ji dama leen ñeent daal naa leen président Wade mënu leen tey mu déposé candidature ñaar man gëm naa ne mënu leen tey conseil constitutionnel validé mu ne ma leen ñett mun leen ko te campagne tamit loolu moom ay slogan la mais mënu leen ko ma leen ñeent kenn mënu ko éliminer premier tour ñeent yooyu wax na waaw waaw léegi jamono boobu Macky Sall mi demoon campagne moo dem deuxième tour ña fa nekkoon toog ca place de l'indépendance di foo demuñu sëñ Saliou mi xam na ni am na candidat bu fi nekkoon man maa doon directeur de campagne mais bokkuñu gis-gis mosuma faa dem man place de l'indépendance mosuma dem parce que ànduma ci loolu dama ko wax ne ko cest à yow jubóo nga ak murid yi jubóo tijaan yi jubóo chrétien yi dem campagne am nga sur le international am nga jaar jaar bu tax nit ñi war la mëna a respecter naw la yaakaar intellectuel yi bëgg nañ la mais ñeneen pousser ko ci lool pousser ko ci lool ba bi ñuy def meeting de clôture am na vraiment lu ma mas a rëccu parce que man yare wuñ ma wax wax bu ñagas ah euh, ba bi nga xamante ni ñu ngi waaj def meeting de clôture mënu waa may ma rek ma demee ba ñu dem foofu après bu paree ñu ñëw ñu def meeting bi ma ne ko dem leen bu leen duma ngeen ñëwaat duma bi nag baat bu gën a garaaw la léegi mais ma ne bu dem ne bu ñu leen dumaagee ñëwal xam nga loolu pour wax la ni man gëm naa ni Sénégal dafa am mu tëddee li nga war a mën a am doo ko amee ci noonu parce que xeex yooyu ñi ñi fiy wax yépp maa leen ci jiitu mais damaa dem ba xam ne Sénégal du lii Sénégal bëggul lii Sénégal soxlawul lii kilifa diine yi ak suñu waajur yi ñu yar jàngal ñu ci loolu dafa fekk ci diggante bi ay internet ñëw na fi ñu yore ay téléphone maanaam léegi leneen lu jóge feneen moo nu yar di nu yaral suñuy doom loolaa waral loola lañ jàpp ne mooy dëgg te nit ki mën ngaa am lu la neexu nga am lu la naqari nga mën a jóg xeex ko défendre ko te doo tas sam réew te doo gaañ kenn jamono bi nga xam ne ñi ngi waajal législative yi passé ma tudd ci benn baat euh, ñi fi nekkoon ci opposition bi def manifestation bu rëy te ñoom jàpp nañ ne manifestation bi réussir na ñu bëgg a defaat beneen bi ñuy def conférence de presse ci turu Benno ma doon wax ci siège AFP ma ne leen ne comme def ngeen manifestation thème bi ngeen doon abordé abordé te nee ngeen réussir na pourquoi ngeen bëgg a defaat ci même yëf bi ma ne yéen seen prochaine manifestation ci urne yi la war a doon maanaam képp ku leen bëgg jox dëgg mais na leen ko jox ci biir bi a jël bulletin de vote voté leen ci biir urne yi après xaw ma ndax li ma wax la xaw ma leneen la waaye en tout cas loolu def. te bañ ko defee def naa amal na leen njëriñ parce que assemblée nationale bi am tey jii ci Sénégal mosul am nga xam ne daanaka affaire yi xaw a toll mosul am mais ñoom bu ñu demul woon ci élection yi naan dañuy empêché tenu élection yi te mënuñu ñu kon la daloon opposition bi 2007 moo leen dal ñu bëri ci opposition bi dañu boycotté woon législative 2007 dafa dee réew mi kon ne di dox yooyu doxul yooyu doxul kon nañu woote jàmm tey dox jàmm doonte d'accord am na yeneen façon yu ko mën a lijjantee

moy di jéem a seet bu ñu xëyee suba ba ngoon lan moy yitte doomu aadama lan moy yitte doomu aadama les masses ne suivront que pour des choses précises et palpables elles veulent manger mieux se loger mieux se soigner mieux et s'instruire davantage lolu moy dëgg lolu nit ñi bëgg to yitte doomu aadama lek nan solo dëkk wér ak wérlee sécurité justice l'autre moo yitteel nit tey su que ne dañu am ay nit ñoo bureau pour décider ne suba de la ba Sénégal ci la wax avec les réseaux sociaux fabriquer avec nous vidéo def ay affaire rek Nous ne du dëgg Fait nit ñi journée bi pour des ci nañ ci grand place mais Sénégal est-ce que loolu dina dox du dox mu ñu nekk ci opposition mu ñu nekk ci pouvoir ñaa dem ñëpp ñi nga xam ne jël nañu seen yitte bëgg ko def ci loolu loolu dox man de bokk naa ci ñi nga xam ne ñoo wax président de la république du Sénégal ne ko bul yéey yàbbi ci te waxoon naa ko ci ab télé il y quelques années en euh, ci biir 2019 bi lañ nekkoon ma ne ko parce que soo teeree wax boo nee damay bokk campagne ubbi na liggéey amatu fi soo nee <laughs> mais campagne bu bina tamit d'abord ci ce bir parti ak sa sa bir coalition ku ci nek di set pour les remplacer te yow ñi nga warona a waxal pour defar Sénégal dañuy suspendre sen lepp di xaar keneen ki ñew ñew parce dañ nan yow comme man comme yow nee nga da def jarato waxal kon manam position bi mu jël loolu la wara a jël comme position c'est à dire nit ñi ñoo wara dal te teey ndax coow amoon na fi mu amoon ku bëggoon a nekkaat candidat nekk ko parce que conseil constitutionnel validé na ko est-ce que dafa nekkaat président dafa am candidature am mandat mais ci biir candidature dafa am ñaari parti mooy bëgg a nekk candidat ak doon candidat déjà ñaari du benn mais suñ nee ba ñu ne ñii ñooy candidat yi mais bala nga am mandat day fekk ñi voté te ëpp ne yow la mais mais bu boobaa est ce que ñooñu amuñu droit ne yow la loolu loolu mooy dëgg tamit pourquoi ñu war fi nekk di reyante ci loolu benn baat moo war a tënk suñu doxalin ñu ramener la paix au Sénégal et la stabilité la sérénité la tranquillité le calme mooy respect respect respect respect respecter Fat Diallo bi nekk ngumba ci ne moom bëgg na doon candidat grand serigne de Thiès bu bëggee nekk candidat am na ci droit bëgg laa wax bëgg ah Sow bu bëggee nekk candidat <laughs> mais am na ci droit Mass Mass Dieng bëggee doon candidat am na ci droit maanaam bëgg la loolu bëgg la état boobu bëgg la bi ñuy dem 2019 xam nañ ni ca jamono booba dañ ne woon Khalifa Sall ca. loi ba na mu demee woon ci jamono boobu mënul du candidature kenn du ko validé euh, Karim Wade candidature kenn du ko validé daf leen tee déposé est que tee na leen déposé parce que ci bëgg lañ toll bëgg kon nañu respecté kenn ku nekk ci sañ-sañu bëggam du dëgg man 2000 élection présidentielle 2000 bëggoon naa nekk bëggoon naa mais samay at manqué woon naa weer mais bi ma ko waxee ba pare ne bu amee at yoo xam ne maanaam matul li ñuy laaj mënoo nekk candidat dafa war a am at yoo xam ne bu ëppee lenn li dootoo mën a doon candidat parce que at yi naax dafa am âge sénilité dafa am après àdduna di dox ba bis la ma waxoon def nañ ko léegi soixante quinze ans trente cinq soixante quinze ans mais dama caa tegoon ne seul la volonté du peuple souverain doit être une limite aux aspirations d'un citoyen à des charges républicaines dans une démocratie parce que loolu day yombal yëf yi kon baatu respect bu njëkk bi mi ngi jëm ci citoyen bi bi nga xam ne am na sañ-sañu bëgg naa xam dañ wax da am 18 ans nekk électeur nekk nangam nekk nangam mais même pour ko matal sañ nga ni bëgg bëgg mais pourquoi ñu war a rayante ci bëgg naa wala amoo droit bëgg yow. mais yow bëggal sa bëggal ak wala ki nga bëggal pourquoi yow nga nga nga am koo bëggal wala yow nga bëgg ba pare ne keneen amul droit bëgg ñëpp am droit bëgg maintenant nag su bëgg bi passé mais ñu respecter le conseil constitutionnel parce que conseil constitutionnel kese moo am sañ-sañ ci démocratie wu Sénégal wax kan mooy candidat ci biir ñi bëgg parce que ci biir ñi bëgg am na ñu dul déposé

te sept député yi ñuy fal Dakar su conseil constitutionnel validé wu woon liste booba kon tey sept député yooyu ñoom duñ ko am te buñ ko amul woon kon tey situation bi xew assemblée du xew kon kay nga xam ne conseil constitutionnel pouvoir bi moom lu leen loolu mooy dëgg léegi même conseil constitutionnel boobu jël décision mu arrangé la nga nangu après nga bëgg toog naan non wóor nañ ne conseil constitutionnel bu ñu demee ba ca kanam décision bi muy jël. du ñu arrangé mais loolu mooy aussi